Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3 énergie ñoo leen di may seen revue de presse. jàngeen jëf réew mi quotidien xëy na tey ak li nga xamante ne moom la ñu nemmeekuwaat ci njeextoolay bis bi muy accident yu métti ak ay bakkan yoo ca ropp yéenekaay kay groupe réew mi network bi yamu ca ndax dem na ca Tiwaawan wax ci lépp li nga xamante ne xew na ci gàmmug ren ji jottali tamit kàddug xalif général lu Tijaan muy ŋàññ yenn ci ay doxalin yi nga xamante ne léegi dafa mel ni askan wi dana ko sofantal lu ci ci mel ni wàllub mbëkk mi fitne gi agression bi ak ay faat bakkan li moo tax Vox Populi gis ni moom Serigne Babacar Sy Mansour ŋàññi na yenn doxalin société bi léegi mu duppee ko ay fléaux sociaux nga xamante ne jamono ji tembe nemmeeku nañ ko ci réew mi mu metti lool kilifa gi lu jiitu loolu enquête yéenekaay mu ngi ñuy xamal ni Tiwaawan jot na jumaa ju bees tàkk grande mosquée bi nga xamante ne yanj na lool taaru méngoo ak jamono jébbal nañu caabi ji ki nga xamante ne moom mooy xalif général bi liggéey bi njiital jëwriñ yi nga xamante ne teewee na yëf yi moom Ousmane Sonko rafetlu na bu baax transparence bi nga xamante ne am na ci projet boobee nga xamante ne ki ko jiitee du kenn ku dul Mouhamadou Makhtar Cissé moom Ousmane Sonko ci biir Le Soleil mel ni ku bëgg a jëmmal lëkkaloo bi nga xamante ne état ci boppam daf koy sekk ak këru diine yi ci biir yéenekaayu an bi xalif général Serigne Babacar Sy Mansour sàkku nay tamit ci ndaw ñi ñu daal di gëm seen bopp waaye tamit gëm li nga xamante ne mooy suñuy baaxu cérémonie officielle bi nga xamante ne délégation bu nguur gi kii di général Jean Baptiste moo ko jiite moom jëriñ ju ñu dénk kaaraange biir réew mi rafetlu na bu baax a baax liggéeyub Cheikh al Islam kii rafetluwul liggéey Ousmane Sonko mooy Serigne Moustapha si moom jiital pur fës ci xët bu njëkk yéenekaay bi di Les Échos mu ñuy xamal ni doxalinu nguur gu yees gi mel ni ku beddi Serigne Moustapha si ci boppam moo tax kàdduwam niki ca champ de course ne mukk du nangu ñu koy santage rawatina moom Sonko Serigne Moustapha Sy yamu ca ndax nee na moom jiiteel Pastef bu fekkante ne dund na ba néegandi gannaaw yàlla mooma rax ci dolli nee na mu ngi koy xaar ci li nga xamante ne moom mooy législative yu ñu dëgmal kàdduk Serigne Moustapha Sy yooyee moo tax bis bi le jour jàpp ni diggante digganteem daal ak Ousmane Sonko ñagas na ba noppi source a ne ko weesu na ñagas lii moom gàtt sa gàtt sa lay nurool li tax a mer nag Serigne Moustapha si xëy na mën nañ ko nemmeeku ci yeneen parti àndoon ak Pastef te loolee mën naa gën a leer ci législative yu ñu dëgmal ndax Walf Quotidien mu ngi ñuy xamal ni Pastef ci boppam li mu bëgg mooy du moyu ay alliéem doxal boppam ci élection législative yooyee législative yooyee ci le Sud Quotidien xëy ak ñun tey di wax ci lu jëm ci parrainage bi caution yi ak lépp li nga xamante ne moo ko wund nekkoon conseil constitutionnel fësal na ay dogalam ñi féetee nag ci alliance pour la transparence des élections mel ni ñuy dànkaafu nguur gi naka noone forum de justiciable bi nga xamante ne sàkku n ci administration électorale ñu bi te tamit gën a ubbeeku Aminata Touré moom leeral na position am ci tasub assemblée nationale réew mi quotidien di xamal ni moom njiital jëwriñ ja woon daal dinay rafetlu dogal bi nga xamante ne njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye daal dina koy jël li mu yàkkul opposition bi moom envoyé spécial bu njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye daanaka daf ko fàtte kàddu yi Mimi Touré yëkkati moo tax L'As quotidien gis ni moom borom accélérer la cadence dafa mel ni jamono ji tembe mooy ki taxaw kot fas yéene défendre kii di Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko politique économique ak sociale bu Sonko Jomaay l'observateur mu ngi ñuy xamal ni FMI ci boppam dafa mel ni ku dëppoo ak projet bi ndax yéene kaay groupe Futur Média bi gis na ni recommandation yu tukkee ci rapportu kuréel googee dafa mel ni méngoon na ak jaar-jaar bi nga xamante ne moom la Jomaay Sonko daal di fësal moo xam lu jëm ci wàllub rationalisation exonération ñoŋal ak xoolaat bu baax li jëm ci recette fiscale yi yokkute fiscalité googee ak tarif électricité bi tamit ci boppam sàkku quotidien ak la tribune xool nañu ba gis ni li FMI fësal baaxul ci nguurub yi ak Ousmane Sonko yéene ma jambal jaan bi gis ni lu jëm ci fayu bor yi daal dafa mel ni compte yi yéeg na bu baax a baax ndax lu ëpp juróom-ñetti junni milliards moom la Sénégal war a remboursé ci at wi ñu dégmal le quotidien noppi yor-yor bi jël nekkoon rapport yu FMI bi fësal état finance publique ci Sénégal dafay mel ni day wane ay ndëngte yi nga xamante ne nguurub Macky Sall ci wàllu boppam moo ko fi def yéene kaay jox na kàddu waa CRDP 50 ñu gis ni rapport fm bi ci boppam li mu épinglé mooy doxalinu Macky Sall dem ba Moussa Dembélé économiste mel ni ku koy dëggal nekkoon état bi nga xamante ne moom la finance publique yi tollu jamono ji jëlewuñu ko fenn fudul régime bi nga xamante ne moo fi nekkoon ci réew mi sport kan but choc la ñu xëyee ni ki tey ji yéenekaay bi duñu xamal ni tirage au sort bi ñu ngi ko war a amal fukki fan ak juróom-ñeent ci weerub septembre bi ñu nekk jamono jooje record yéenekaay dikk ci ligue des bi nga xamante ne tey ji lañu koy door ay jongante yu bëri di ay choc ñu ngi koy ciy xaar bokk na ci